30 millions bu waxee 30 millions dafay exagéré euh, man la Abdourahmane Badiane secrétaire exécutif comité de développement sanitaire bu centre de santé bu Gossas waaw man de caw loolu maa ngi koy maa ngi koy lire si Facebook bi maa ngi koy lire si Facebook bi bon mais souvent man luñ ma interpellé wul rek duma ci dama si àddu bon c'est bien rafet na aussi comme ni nga def ni euh, dégg benn caw yaakaar ni mën nga amee peut Euh, réponse quelque part nga dem foofu effectivement je suis le secrétaire exécutif euh, par rapport à 30 millions yooyu ñuy wax euh, waaw mën wax 30 millions mais ni la demee parce que depuis l'avènement du maire Adama Diallo bi mu ñëwee amoon na benn bu ndaw bu problème recrutement du personnel bi nga xamante ni dafa au niveau du centre te maire sortant bi don leen fay bi mu mom euh dafa fekk contrat yoy jax donc il n'y avait pas de contrat qui les lié. ba mu indi woon fi sax mais après ñu trouvé un consensus un consensus pour xamante ni vraiment euh, mo décanté la situation le personnel du centre était là le maire le préfet le médecin chef ak ñun le CDS ñu waxtaan ba trouver terrain d'entente Eh, li ñuy jàppoo moo di que euh, la mairie euh, donne une subvention de quinze millions donne une subvention de quinze millions au développement sanitaire mu di ci fay personnel boobu personnel boobu nag mooy les aides yi fa nekk aides infirmiers yi ak euh, personnel technicien de surface donc euh, quinze millions yooyu ci lañ leen di fay ak li ci CDS di di dolli ci lañ leen di defal seen seen ay seen seen seen ay seen ay motivation Euh, bi ko defee première année bi ça n'avait pas posé de problème parce que première année bi dañ ko dugaloon ci médicament parce que subvention bi ñu mairie joxoon une subvention de 7 millions en médicament daf ca 15 millions donc mu représenté les 15 millions de xamante mooy subvention pour le paiement de ces de ces de ces agents là bon posé wul woon problème mais l'année suivante dañu dañ ko bañ a def euh, subvention dañ ko bañ a def euh, médicament ñu bokkoon def subvention boo xam ne dem directement 15 millions de dem directement ci keesu CDS et pour cela euh, il fali ñu demande ñu un parce que maire yi mënul engagé te amul papier juridique donc ci récépissé lay engagé bon année boobu muy 2023 bi euh, fekk déposé woon nañu demande de récépissé ça fait mois même l' équipe sax defoon na ko euh, mon frère Séni que je salue de passage ñoom defoon nañ defoon nañ PV bi parce que pour nga am récépissé da ngay joxe PV bi et autres euh, bi ñu defee récépissé bobu ñu dem ci préfet laaj ko récépissé bi mu récépissé bi génnagul après mom mu defal ñu récépissé parce que récépissé bo déposé trois mois après bu génnul rek donc association bi yoroon déclaré day valable buñ ko rejeté wul donc le préfet nous a fait un récépissé ñu jël ko jox ko le secrétaire municipal mu def engagement bi le père qui était là euh, le père d'antan Sonko lui il avait rejeté ça ni mom du fay à partir de ce récépissé-là qui venait du préfet donc il nous fallait un récépissé qui venait de de de, de la gouvernance mu ñu commencé waat procédure donc motax année 2023 bi ñu subvention bi ñu commencé waat benen procédure pour am récépissé maintenant bu balaa bu à partir de la gouvernance ñu def ko def enquête de moralité ñu waroon def yépp ba yalla dogal euh récépissé bi génn na mois yi ci ginnaaw war na mat ay un à 2 mois récépissé bi génn na bi mu génnee aussi jël naa ko ma yóbbuwaat ko ci secrétaire municipal bi jox ko ko ni ko le SPICERA ba mu commencé enclenché procédure pour que ñu joxe subvention yooyu semaine passée yàggul dara le le secrétaire municipal en personne woo na ma euh, booba sax coow yi jógagul woon sérieusement ni ma ni ma say en bonne voie donc que muy muy muy muy subvention boobu les 15 millions mu ma mën nañ ko ñu ngi koy engagé donc man yaakaaroon naa ne sax xëy na balaa heure bi danañ ci jot mais jotaguñ ci jusqu'à présent mais yaakaar naa daal fii ak fan yu néew moom danañ ci jot parce que loolu la ñu loolu la ma secrétaire municipal waxoon waaw je pense que loolu moo ci moo ci am mais ce n'est pas une question de quinze millions CDS non non CDS c'est juste une subvention dañ koy jox CDS pour que fay le personnel là mais heureusement euh, le CDS aussi ba fi boobu ba léegi le personnel là euh, coow amul dara amul parce que ñu ngi leen di fay ngi en attendant de rentrer dans dans, ces fonds là mais le CDS ñu ngi leen di euh, durant l'année 2024 yëpp ñu ngi 2023 aussi fayee ko nañ normalement donc ça n'a pas posé de de de de de problème waaw ci non 30 millions Si tu as 30 millions dafa exagéré waaw mairie bi la mais ak maire xam nga mais 30 millions tu ma wax ni 30 millions parce que lu tax ma 40 millions parce que 15 millions yi mom amna parce que 15 millions yi CDS fay na ko mais 30 millions 15 millions yenen ñu ngi en cours d'exécution. donc tay ji suma ma 15 millions la as 15 millions parce que euh, dañu wara fay di dem mais subvention la bo xanté ne dafa dugg dans l'année. donc bu duggee en début d'année comme bu duggee en fin d'année en tout cas notre santé financière euh, nous permet de payer fay mais les 15 millions de 2024 c'est la mairie qui doit ça au CDS. parce que préfinancé nañ ko préfinancé nañ ko mais le retard boobu c' était dû au au manque de récépissé et le père qui était là dañu woon récépissé bi ñu ko présenté moom en tout cas doy ko doy ko nañu dem ci récépissé beneen à partir de de de Fatick ñu topp ci procédure procédure boobu dafa yàgg tellement que ça a tellement duré que moom daal mi ngi noonu waaw dafa yàgg trop dafa yàgg trop donc y' a y' a effectivement. de l' argent boo xamante nii municipalité bi war na ko jox la le CDS en contrepartie faute bi non non faute bi bu fekkee faute am na bu fekkee faute am na man naa ni c'est c'est partagé ah c'est partagé erreur sax moo am erreur laa ko mën a tuddee parce que man dama di que lii yëpp mënoon na gën a simple mooy buñ ko defoon ci médicament rek bu ñu ko defoon médicament kon heure bi du am retard mais le fait ñu changé ko ba ko def euh, euh, subvention boo xamante ni dañ koy verser suñu compte peut-être loolu moo moo indi lenteur yi faute bi moi je dis que ni a une une partie de responsabilité boo xamante ni ci ci bi fi nekkoon la Sonko am na part de responsabilité parce que lui euh, vraiment bi mu bi mu bi mu kiiyee bi ñu indee récépissé boo xamante ni ça venait du préfet bon mënoon nañu jàppale rek ñu jot ko mais moom tamit ci liggéeyam la nekk mu ni moom daal en tout cas loolu te moom waxuma ko en personne là aussi je dis que ko c'est le secrétaire municipal qui m'a dit que ni le le n'accepte pas ce récépissé là du quotidien. n'a pas accepté donc on est beneen récépissé comme il l'a demandé bon les ça doit faire des mois mais jusqu'à présent une subvention donc ce n'est pas une question de de personne ce n'est pas une question de personne c'est structure c'est le CDS et la municipalité c'est le CDS et la municipalité mais ce n'est pas une question de personne vraiment bon mon petit acteur, mon petit ñoom ñu koy politiquer mais man nee naa la depuis 2024 la depuis vingt 2023 la man su ma waxee si dem ci CNF rek c'est juste pour éclaircir parce que man su doon man maa koy politiquer kon yaakaar na kon li ma leen wax ni depuis 2023 2024 boobu ba léegi le CNF mi ngi fay en attendant nekk ci procédure yi dem di outil récépissé et tout donc yaakaar naa bu doon wax rek ci kaw kon xëy na ci ñun lañ koy déggee mais boobaak léegi yaakaar na xëy na période de campagne ay ay wujju lañ ku nekk ut loo loo sànni sa morom waaw ku nekk ut loo sànni sa morom rek ku nekk moom ut loo sànni sa morom loolu man noonu laa gisee rek ah noonu laa gisee mais y' a pas péril dans la demeure ci sama gis-gis waaw en tout cas ñun CDS daal en tout cas ñu ngi topp ci affaire bi tous les jours maa ngi woo le secrétaire municipal mu di ma wax mu toll et autres newoon na ma daal dans la semaine yaakaar naa danañ ci dana dana ci am lu leer waaw waaw merci